isia kaitimulana serita paradima sayba lago faramaren qui est là parmi nous yéen ngi ànd ak suñu people tv ci ay chroniqueur Rita comme nu mu koy defee saa su ne a ah, a ah, engagé engagé bul xeex bul xuloo ànduma ak yow tu es quelqu'un dans ce pays bul yàq sa crédibilité nit boo nekkee ci réew mi dara ah dangay moytu yenn coow yi yow engagé yaa xiti mu laa naa la jaral lii yow àddinaa la bëgg ñëpp la bëgg bul yàq loolu yow yaa xiti mu laa looy xeex looy xuloo ah jigéen ñi nga xamante ne taajante te santeeg jokkoor maa joor jokkoor leen am jaay indi joob yaa ma ne maane la waa dem sax ci xewu jàmbur nag di xeex nag ah waaye yéen li ngeen def ñaaw na nag ñaaw na de engagé sama xarit nga dama laa bëgg Viviane mi nga bëgg moo tax ma bëgg la boo demee ci xew buñ la tooñee amal maîtrise téyel sa bopp bul xeex bul xuloo jàppal na yow léegi nekkatul yow rek da nga am ñu bootu sa ginnaaw bëgg la di la seetaan di la aimé yow yaa ci bu laanaa looy xeex maam Ndiaye pilim looy xuloog pilim waa Sénégal ndax dañ fee tuur poobar boog léegi daal koy waxal xolam ma ngay xut-xuti xew jàmbur ngeen dem fa narkaa yàq di xuloo engagé loo jëral li yow tamit sama xarit bi ah ànduma ak nag ci li nga def nit dangay am maîtrise nit da ngay am contrôle ci sa bopp gis nga pat ak a mën a rendi nit waaye saa yoo wàccee sa personnalité di xataraayu naan bàyyi leen ma ma nangam tàndaayam tey laay nang loolu yëpp ñàkk fayda la waaye yéen seen ndey yi ngeen di nangam taan ku ne di nangam taan nangam taan nangam taan fan ngeen ko teg tamit ah waaye yéen a ñàkk ab yar kersa nag ah ñàkk ngeen ab yar ñàkk kersa comme euh, nag yow pilim pilim moom ñëpp xamee nañ ko wax sax moom moom du ne kenn bàyyi naa la ak yàlla du delloo juróom bay delloo fukki dërëm waa engagé kooku nag daa jara topp yow tamit nag yo engagé nit ñi dañ laa bëgg ah bu la nit ñi bëggee dégg nga loo def nit ñi bëgg ci kontaan ci di la déglu di la seetaan waaye yow lu la jaral ngay xeex nag di xuloo kii sa jigéen la bu la defee dara booleel patak organisé dégg nga liggéey sa liggéey jàppa sa njàmbur looy tontu lan ngay wax buñ ne la waxal looy wax engagé ñu da ngay am fulla ak fayda ak yow fulla ji saxan ci yow ak personnalité xanaa kay muusa la piqué wala ban euh, ban ban moustique moo la rek ngay xataraayu noonu naan da ngay xeexa wala ngay xuloo ah te man seen ndey yi ngeen di bàyyi ñu di leen saaga sax man mooma njëkk a metti njëkk a ñàkkab kersa ñàkkab yar ni da ngay am personnalité dignité boo demee ci xew toogal tegle saytaan waaye nag xewi léegi li ñu xewal moom da ngay ñëw jël micro lala metti woon yëpp nga bëgg ka eh, yàbbi naan waaw waaw yow mi sa nday nangam ak nangam yow mi kay ku baax nga dugg na fii génn na fii am na yoo xam ne day wàññi sa crédibilité da ngeen a gis Wally sekk dem fenn di jël micro naan day eh, wax waxu caaxaan wala waxu naq sax gis nga nit la la tax a jug danga koy def boo ci paree pare ci cifu la ku jàkkaarloog yow di la xas mbaamul xasaate fu muy takk xasaate fan lay takk man de boo ñëwul fekk ma fi ma toog di ma dóor du ma yëngatu sax du ma bouger sax fi nit da ngay am classe am personalité dignité waaye yow ku la wokk nga bëgg kaa wokk ku la xuri nga bëgg kaa gaj yooyu day wàcce personnalité nit baaxul te maam ku nit ñëpp tufli nga tooy euh, pilim nit ñi dañ laa bëgg man nee naa la sama xarit nga bëgguma kenn ku la wax lu la metti defaraatal sa toogaay Sénégal jëm kanam àddina amul solo yi ngeen di def nii yëpp xoolal ndeysaan caba daraame mii nga xamante ne moo ñu doon bégal nekkoon wal fajri rakkam moo génn àddina te feebaru ñetti fan la feebar yàlla na ko yërëm ñu ngi ko koy ñaanal caba mu nga États-Unis ndeysaan ñu tàgge ko rakkam lu gën a metti loolu àddina bi lan moo fi jar xiiroo ko ŋaayoo nit ñaa ngi dee te feebar sax defuñu ko ah feebaru ñaari fan ñetti fan la ñuy feebar ñu jékki saa ñu ne gaañu na caba maa ngi koy saw bu baax a baax a baax ndeysaan nit ku baax la moom moo tax euh, c'est grâce à caba ma daal di xamanteeg njagaag ñoom njagaag ñoom waaleeg ñoom ñooñu ñëpp wax digg fa yàlla ci loxoom euh, c'est grâce à moom moo tax ma xamanteeg ñooñ ñëpp ma koy remercier bu baax a baax a baax caba dramé moom mu nekkoon wal fajri di animé léegi mu nekk États-Unis rakam bu mu bokkal ndey ak baay moo gaañu maa ko koy jaal na ko àddina yëpp jaale nag parce que dafa metti ku xool ci lii rek jarul ngay xiiroo ka ŋaayoo ak di xuloo eh, yow nag eh, Fatou Ndiaye jaay Diatta jaay sama xarit bi waaye yéen téere doomu jàmbur ji lu tax ngeen koy tekki nag dégg naa xale ba daa foofu ngeen di tekki ay téereem luy seen yoon ci téere jàmbur ah waaye yéen tamit eh, coow li bu leen ci boole xale bi nag di tekki ay téereem ak a def yëf xale moominu yàlla la xale kenn waru ko duggal ci ay histoire ak ay coow parce que yooyu yëpp baaxul ci moom bàyyi leen xale yi ngeen di jël di leen xeexe kuy xeex mbaa ngay xuloo xulool sab xuloo xeexal sab xeex mais xale yu ndaw yi ngeen génnee leen ci ba ñu set ndax nee naa la xale xamul dara moominu yàlla la Sénégal ba war ngeen a soppeeku te changer seen doxalin de eela eh, kamasala naaxira atoy sa sabali bref nee naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci ñi nga xamante ne muy euh, soxnaas bas soosu noonu maam jaara maam jaara nit dangay ngay dal nit da ngay am personnalité ak dignité boo tàggoowee ak nit ki foofu damay ñëw ci ñi nga xamante ne muy euh, soxnaas bas soosu noonu maam jaara maam jaara nit da ngay dal nit da ngay am personnalité ak dignité boo tàggoowee ak nit ki sa doom bëgg a dem foofu jëlal sa jànq nga ne ko yóbbul ma ko dégg nga bu waree ñibbi si nga woo papaam ne ko dama bëgg xale bi ñibbi si na la jaral sax xoolal nga yónni kenn waaye yow seetoo fa loo fay wut yëppu ñàkk fayda yooyu bàyyi nit ki ba pare di rogojeeloo ko rondoo ko riisoo ko kii yooyu pour mu dellu siwaat nit ñi amuñu jotu sëy góor ñi ñoo amul jotu sëy góor ñi xam nga lu ñu tal sañse sañse bu rafet di war euh, xale bu jigéen bu leen jëndal yére ku leen jëndal dàll ku leen fayal seen appartement koo xamante ne day jël appartement bu góor ñi léegi amatuñu jotu sëy loolu ngeen war a xam def ko ci seen bopp yi surtout nag góoru jaay taar yi ku leen moytuwul chaque jour nga jooy chaque jour nga jooy sa xol bi jeex tàkk te doon ci mun dara ndax li lay metti rek lañ lay def te munoo ci dara dañuy doxaan bay doxaan sa xarit di doxaan bay doxaan sa cousine di doxaan bay doxaan sa rakk wala sa mag ñoom dara safu leen seen bakken rek la ñuy topp seen bànneexu àddina je pèse bien mais moo nag waxuma bas loolu lay def de bu kenn jël samay wax di ko kole ci leneen neewuma bas cun ndax bas cun nit ku baax la kenn musu koo dégg mu génn di wax yow rek la ñuy gis yaay wax yow maam jaara yaay génn naan waaw màtt na ma gajj na ma xusi na ma ba tey bas tontuwul patt nag day tontul nit faites très attention maam jaara on vous aime beaucoup mais on n'aime pas quelqu'un qui parle beaucoup qui rentre dans les détails à chaque fois ndax yow loo musta wax mer warta tax nga génn di ko wax naan waaw ba ma ombeeg ba ma ŋàppateeg ba ma ŋóolooleeg ba ma duggee fii ba ma génnee fii waaye le problème lu suñu yoon ba nga ŋàppateeg ba nga ŋóolee lu suñu yoon loo ciy génn di wax man balaa maa dee nga am lu la metti bëgg a ñëw ci internet bi naan danga ko fay wax à quoi ça sert après nit ñi dañ lay jéppi xam nga nag lan la nga toog yar sa doom yi te xeex bi ngeen bañ cee dugal xale yi coow li leen ci dugal xale yi baaxul de am na xale yoo xam ne ay gor lañu boo leen dugalee ci yenn coow yi rek seen fan day gàtt ci pes bien mes mots néew ma ay doomam fanam day gàtt dama ne am na gone yoo xam ne kenn waru leen dugal ci coow parce que boo leen dugalee ci coow seenu fan day gàtt bu leen leen dugal ci coow bàyyi leen jël xale di ko xeexee di ko nganaayoo bàyyi leen jël xale di ko xeexee ak di ko nganaaye nit dangay am personnalité ak dignité bul xeexee kenn bul nganaayoo kenn amal personnalité ak dignité maam jaara toogal nga jàpp sa njàmbur sa doom yi nga jox leen éducation de base demal ba kër Viviane nga ñaan ko ci personnalité am geeg dignité gi éducation de base am gi boo ko ci laajee dina la wax nooy def ba am ko nga wut ko bàyyi leen seen histoire yi ngeen di def di ci dugal xale yi baaxul ci ñoom xale moominu yàlla la xale xamul dara moom la moominu yàlla ñu naan waaw téere ba fee moom kay tekki nañu téere ba ñu ne simi nañu ko def nañ ko taati na léegi bu subaa mu war fee doon président du ngeen ko yàqal àddina ñu génnee nag la ngeen doon wax ci eh, internet ba internet nga xam ne loo ci def mu nga fa ba illaa yow mi diini mi ngi fi ñu daal di koy génnee rek ñoo tegal la ko si taabal bi après lan ngeen di wax ah? bu boobaa yéen du ngeen lor xale bi xale bi màgg war fee doon président wala ministre wala dara ñu ne déedéet du ko doon ndax fii la ñu nekkoon di seen ndey di coowa ka di xiiroo ka ŋaayoo te man wax ji li muy rëy rëy man musumaa gis ba bas cun génn wax de bas cun de mooy Mario Mbaye moom ma ne ko nee naa ko moom Mario mbay de moom de patak organisé la boole du génn waxul waxul def wax luwul am leen personnalité dignité gëm leen seen bopp bàyyi leen góor ñi ngeen topp góor du projet góor du projet de bàyyi leen góor ñi ngeen topp te xam ne góor mënta doon projet nee naa la bu leen seetaan sama vidéo mu neex a neex a neex ba ngeen fàttee ñëw Le Soleil chez Adams jàkkaarloog dexu maam sangi di lekk seeni calamar crevette brochette de lot dorade coof poulet frit poulet yaasa langous cameroun sigal ngeen di ko lekk rek jàkkaarloog brise bi ñu leen ko servi rek muy neex ngeen di yokk seen dooley mbëggeel nee naa la xeex ak xuloo day wàññi crédibilité nit te day wàccee sa personnalité te boo doonoon ñaari kilo xaaju genwaar liibar ngay nekk parce que foo tourné kenn dootu la nawloo engagé nag yow laay wax bul xeex bul xuloo xëy na ñeneen ñi sax ñoom tàmm nañu xeex ak xuloo ndax loolu ci seen notion la bokk mais yow kenn xamula ci yooyu góor da ngay góore mu dëgër këng bàyyi leen xuloo ak xeex beeg xiiroo beeg ŋaayoo bi nee naa la xola sama vidéo xola dere fag ya hayti mulana waru ko wona aɗo hi Fatou Njaay Njaay Njaay Njaay Fatou dama la bëgg ndax danga dynamique challenge bu ñëw yaa koy gañe Fatou bëgg la rek moo tax may wax ak yow xaw ma nag ndax dañ laa tuumaal wala yaa ko def bu fekkee yay génn ak bas ba di ko fii rek ex jabaram du sa domaine tu es quelqu'un dans ce pays tu es une grande dame nit da ngay xam say valeur góor ñi jaay lañu góor gu rafet coono la damay bañ nga sonn ni gone googu sonnee de jaara faatu bàyyi leen xale yu góor yu rafet yi ay waay liggéey leen seen liggéey te dégg naa mobile ya yaa koy jëndal sañ say ya sa yaa koy jëndal Fatou lu la jëral lii nag yow tamit Sénégal da laa soxla bëgg la waaye yéen yéen daal da ngeen a bëgg ku leen di souffrir loo yow yaa xayti mu laanaa xam nga ne bas daa rafet njool ci kaw jantale boo génneeg moom fii dalay sonal jël sa xool bi di ko daggate yor fourchette am góor ñi bugguñu kenn ah maa ngi maa ngi ciy waslu sama àq nag xam nga lu tax ma ciy waslu sama àq dama laa bëgg ndax dangaa mën li ngay liggéey ba pare dangaa jàng alxuraan door muridisme Fatou Mag yow ay wax déglu ma dégloo ma bu ma dégloo xol nag dégg nga booy déglu vidéo bi bu ma dégloo xol yow maa la def fii ci sama xol ndax nag dangaa mën li ngay def dynamique ah waa yàlla baax na